àdduna da jël sa ay faiblesse nga def ko ay force boo jëflanteeg nit nga xam ne jamono bi ñu toll mais yonent bi bu tëwoon rek xeex dañ koy rey rey maanaam macha allah yàlla na ma yàlla parce que yonent bi kenn <laughs> mënu koo rey ku du yàlla mais dañuy dañuy yàq communauté am bundu xattal leen rey leen def leen n'importe quoi mais dafa maslaa jël ba taxaw c'est ça l'intelligence. am na qui ont lu ça comme une sorte d'inélégance. Wow. de de la part du, du du premier ministre. non je ne veux pas utiliser ces mots-là man wax naa la ñii tànk que amuñu at ci réew mi duma leen attaquer xam nga baax li ma la bëgg a wax cest à bëgguma leen juger fi mu toll sama taxawaay mooy dama leen di jox li ma xalaat. ci conseil. da nga bëgg a contribuer. waaw dama bëgg pour jàppale leen jàppale leen pour affaire bi ñu ñu réussir ko. Ah, sincèrement. ah waaw. man kay fan dama gis ne da sedd. naka da nga sedd da seddal affaire bi. xam nga maam daa baax dafa am lu mu wax nee na. say nen bu nekkee ci biir bato da ñaan yàlla bato bi mucc parce que bu bato mucc say nen du mucc sa pañe du mucc mais man. mais mais mais mais mais mais c'est des gens à qui. vous ne, vous ne faisiez pas de cadeaux. C'est des gens que vous avez jugés incapables de, de, de, de, de gérer ce pays-là. yow newoon nga demoon nga sax ba prophétiser nga ne euh, Ousmane Sonko ak euh, Bassirou Diomaye fay bu ñu nekkee ci boppu réew mi crise la ñu jëm lan moo vari lan moo la varié loo ci sa discours euh, Ousmane Sonko bi ñu ak bopp Diomaye fay bi ñu nekkee ci réew mi ba léegi wax ji bariwul je que seen situation normal li xew nii te dara dem te demaguñu fenn. entre les deux hommes nga waxoon defal ndànk Ousmane Sonko n'acceptera pas armée bi di ko tóojal matagul six mois am diplomatie bi à ses pieds. Euh, xam nga matagul six mois te gis nga wax ji mais man je ne peux pas nekk sénégalais euh, samay waajur sama yaay ak sama papa ñu suul leen senegal samay doom nekk Sénégal samay soxna nekk Sénégal li ma am lu ci ëpp ma investir ko Sénégal vraiment di toog di xalaat ni Sénégal dafa war a am crise pour affaire bi yàqu non bëgguma loolu man li ma bëgg sincèrement honnêtement je te le dis objectivement parce que man yoruma xolu yéefar franchement man ñi jàmm laa leen yéene très sincèrement li ma bëgg mooy ñu réussir bu ñu la tëjaloon seen bunt wala est-ce que da leen di def lancer un un appel. mais nag yow pour l'intérêt de la nation mais mën a yow xam nga man ak yow it. non waxuma waxuma dem bokk ci ñoom baa nekk ci gouvernement je veux dire hmm. est-ce que da nga leen di lancer un appel. au nom de l'intérêt de la nation. Lancé... pour indil leen yow sa xalaat. non lancer sa gis-gis. lancer wu ma appel dama ne ñii soog a ñëw. yàlla def ñoom ay inspecteur des impôts képp rek kese dong lañu ñu nekk chef de section mosuñoo nekk chef de service mosuñoo nekk directeur mosuñoo nekk secrétaire général mosuñoo nekk ministre mosuñoo nekk premier ministre amuñu expérience ci yorum réew waaw mais ñooñu nag boo leen laabu réew li nga xam tuuti pour wax leen ko ci li nga mën parce que ba nag géopolitique laay jàngale te xam naa ni axe bi baax ci Sénégal fi guddi yi ñu toll xawma ma demee luy xew luy xew suba yàlla boo ko xam guddi yi ñu toll c'est lax de l'Occident